lii lan mooy lan mooy lan mooy problème bi est que yow par exemple animateur yooyu noonu ngay wax duñ la duñ la teg lu bëri est-ce yéen a ngi déggante est-ce que parce que rappeurs yeeg animateurs yi ay alliés lañ ñoom kenn mënul dem bàyyi moom waaw am ah, man de awma benn problème mm. euh, gars yi peut-être du ñuy tase lu bëri bëri mais fu ñu tasee dina nuyoo jàmm sant jàmm ak salaam ñi nga xamante ni euh, am naa seen euh, kii si ay email wala affaire yooyu yenn saa yu ma sànni leen kii ñun nuyonte waxtaan. Mm-hmm. affaire yooyu loolu ñu am quoi mais nekkuñu ay xarit de proche. Mm-hmm. xamalum ndax mais liggéey bu teewee rek xarit day dàq quoi. parce que nit gars yi dañ foog nii ñi nga xamante ni ñooy jaay drogue wala ñi nga xamante ni ñooy dem sàcc wala ñi nga xam ne ñooy dem agressé ñooñu rek ñoom ñooy ñoom ñooy dundee ñàkku jàmbur yi du loolu mais yow bu ñu la tegee jalis yow ñu jël la teg la fenn da lay fay. pour que mm-hmm. nga doxal yoon. foofu waroo fa am mbokk. Mm-hmm. waroo fa am xarit. Mm-hmm. waroo fa am leen danga war a teg selon yow lu ñu la fa tegee. Mm-hmm. parce que euh, ñoom ñoo war a def ñun suñu promotion quoi. est-ce que comprendre ñoom ñoo war a def suñu promotion tey par exemple bu ma defee benn affaire ma sonn si dugg si joo. kërti kërti fii xam nga nu mu demee pour nga am producteur problème na mhm. yooyu yaay jël sa xaalisu bopp di kërti kërti di fay si studio defar son. Mhm. enregistré jël sa temps di bind di sonn. Mhm. xam nga defar affaire boobu ñëw jox ko benn jalis ni ko affaire bi dama bëgg mu jàll kat. pour ko gars yi mën a xam au moins que man maa ngi liggéey maa ngi préparé ay affaire mais duñ ko def nañu wante dëgg. am na yenn single yoo xamante ni bu génnee Sénégal gépp xam ne single bi génn parce que. ñëpp a ko tegaloo est-ce que newul affaire de complexe. wala affaire de koppar aussi parce yenn animateurs leen di. corrompre et tout man seen biir bopp quoi. Mm. man mm. ñoo xam. mais corruption bi ci am yow yow corrup mus nga ko dund. corruption comme animateur laaj la xaalis wala mus nga gis ko ko dund. ak rappeur waaw waaw ay rappeur dañ ma koy wax dañ may wax ni waaw man animateur diw dem naa mu laaj ma xaalis man animateur ñemewu ma laaj xaalis yaakaaruma ko ñemewu animateur ma laaj xaalis moom dootuma laaj mhm. xaalis. ban message ngay lancé si animateur yi nga xamante ne dañuy mooy mooy loolu rek dañuy sàcc ko parce que bu ñu la tegee woo la teg la ci benn bërëb ñooñ bokk nañ si ñu tardeel Sénégal gis nga mhm. Sénégal ku nekk liggéey liggéey da ngay jubal. Mhm. dëggal leeral. nga teg ko ci yoon Sénégal mu a avancer mais ku nekk bu nekkee sa coin léegi te ñooñu après ñoom ñooy taxaw def émission di wax yow loo xam ci sàcc yi affaire yooyu alors que ñoom dañuy sàcc parce que dañu leen fay. pour ñu def lii ñuy def leneen lu bokkul ak loolu di laaj ay xaalis ci suuf ak affaire yooyu. ce des voleurs quoi.